Sadio Mané di ab international footballeur sénégalais mu nga judd le 10 avril 1992 ca village bu Bambali foofu lay ca Sédhiou ma nga doore li di football ca benn centre de foot bu ñuy wax génération foot ci xarañteem ak njàmbaarteem la ko club bi di FC Metz daal di repéré jël ko rek ngir mu joué ca équipe boobu lay ma ngi signé premier contrat professionnel am ak club français bi ca ndorteelu atum 2012 ca même at boobu la daal di jóge FC Metz daal di wutali équipe bi di Red Bull Salzbourg noonee la daal di jëlee deux championnats défaite ab doublé ca coupe nationale ak équipe am bi di Salzbourg ca atum 2014 ca at boobu lay ba tey moom doomi Sénégal bi ma ngay wéy di confirmer li di talent wam ca équipe bu ñuy wax Southampton en Premier League ca atum 2016 ca la wutali équipe bi di Liverpool ca ndorteelam ak équipe boobu lay ce la gaynde ak Aliou Cissé bi daal di gën a dëggal boppam wane njàmbaar ak xarañteem gu mat sëkk ca atum 2019 mu daal di dem finale en Ligue des champions ak waa Liverpool ca noonee yët la daal di remporté lii de la Supercoupe de l'UEFA ak lii du Coupe du monde des clubs de la FIFA noonee la dal di doone li nga xam ne rek moo di sacré joueur ca atum 2019 ak atum 2021 ca carrière ba mu def ci dëkkam bi di Sénégal moom gaynde ak Aliou Cissé ma nga amaloon ab sélection wam ca équipe nationale bu Sénégal 25 mai ci atum 2012 ca match bu doxoon ci diggante Sénégal ak Maroc mu amaloon ca passe décisive pour Moussa Konaté di benn but bu amoon ca match boobu lay butam bu njëkk ca équipe bu Sénégal ma nga ko amal ca deuxième apparition wam ca match bu doxoon ci diggante Sénégal ak Libéria ñu mujjee ca jëlee ci ñetti bal ci benn ci éliminatoire Coupe du Monde 2014 ca la marqué troisième butam ak équipe bu Sénégal ca quart de finale de Coupe d'Afrique des Nations de football ci atum 2017 ci la dal di raté ab penalty contre Cameroun ci boobule penalty mu raté woon rek noonu lañ dal di éliminer équipe bu Sénégal ci ay distinction individuelle am moom Sadio Mané dal di nay doon lii di joueur africain de l'année en 2019 ak 2022 doon na fi talon d'or africain à 2017 membre de l'équipe type de la CAN en 2021 meilleur joueur de la CAN en 2021, meilleur joueur de Liverpool en 2016-2017, doon na fi te meilleur buteur du championnat d'Angleterre en 2019 ca CAN bu 2021 bi ñu weesu lañu des Lions du Sénégal par le président de la République monsieur Macky Sall gannaaw ba mu jëlee Coupe d'Afrique des Nations ci atum 2021 moom gaynde ak Aliou Cissé bi di yaakaaru Sénégal doon ñaaleeru africain bu yéeg ci podiumu Ballon d'Or bi nga xam ne rek moo dal di occuper deuxième place au niveau mondial. ci cérémonie de Ballon d'Or bi ñu doon amal niki démb moom Sadio Mané dal di nañ koy ràññee ba jox ko rekk li nga xam ne moo di prix Socrate di ab raaya bu bees bu ñu dal di créer bu yàggul dara. prix boobu nag ña ko ko jox ngir rekk xarañteem ak njàmbaarteem gi nga xam ne rek wane na ko ca dëkkam bi di Sénégal waaye it social yi nga xam ne moo ngi koy amal muy rek école yi nga xam ne daal na koy tabax juma yi nga xam ne Sadio ne génnewu ci loxoom social la muy amal ca dëkkam boobu nga xam ne rek bàyyiwu leen ginnaaw benn yoon moom gaynde ak Aliou Cissé yi gannaaw ba mu dal di téewee ci bilay Ballon d'Or moom Sadio Mané dellu siwaat wane rek li nga xam ne moo di culture du Sénégal la koy njëkk a fësal mooy rek costume africain ba nga xam ne rek daal dina koy sol teewee ko ca bilay cérémonie mu mel ne rek moom Sadio saa ne rek day wane li di valeuru Sénégal bàyyiwul it culture yi nga xam ne rek am na ko fi ci Sénégal ni niki démb yemook fukki fan ak juróom-ñaar ci weeru octobre ñu doon sargal rek li nga xam ne mooy journée Ballon d'Or 2022 boobu lay prix nag di Ballon d'Or ñu jagleel ko ki nga xam ne moo di Karim Benzema